والقلم وما يسطرون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 رحمة ربك بمجنون relation extérieure ñëpp gis nañ ne chaque année dégg nga mu def ay résultats am ñu bees borom xam-xam yu yoo xam ne kenn contesté leen ci àddina bi ñëw te et puis sëñ Muntaxa wax plusieurs fois hmm. ne ñëpp ko ñor hmm. mais gan ñooñu dégg nga di suñu nawle ay kilifa diine jóge bitim réew hmm. dégg nga maanaam bokk na ci li gën a ñor ci liggéey bi Cheikh Mou Cheikh Mountakha wax na ko ba tàyyi gis nañ sax ci image yi xam naa ñii dañ ko jàlle bu ngeen bi leen sëñ bi doon dalal ngeen nga leen présenté waaw loolu gis nañ ko mu dégg loolu sax kenn ku ne xam na ne hmm. euh, yoon wi màggal gi ni muy def ak nangam nangam escorte yeeg malgré hôtel yeeg bi ñu leen bëgg bëgg a dalal faaw ñu jànkoonte ay coono yu metti hmm. doo a agsi mais gis nga ñun ñuy liggéey ci liggéey bi coono bu ñu mën a jànkonteel hmm. gisee ñu gisee Cheikh Amadou Mountakha. ni muy dalale gan ñi ni mu leen di safoo. dégg nga malgré donc euh, fi mu toll actuellement. Hmm. ñun ñi liggéey lépp luñ jànkonte woon dañ koy fàtte gan ñi itam ku ci ñëw ku ci agsi hmm. soo ko gisee rek. Hmm. maanaam lépp loo amoon. dégg nga ci loo jànkonte woon. dégg nga danga ko fàtte ba bëgg sax dégg nga dolli yéene waat sax dégg nga soo mënoon dégg nga chaque ane nga ñëw. Mbàkke maa ngi jégalu ki dëgg bu xam naa bëggoon ngi taxaw foofu rek campé yi euh, taxut a jóg waxtaan wi soo xam ne waxtaan ko andi muy lu ñeen wàllum invitation gan yooyu wax nga ne kon ren lu xaw a jege kanam ñëw na ci biir am na ci lu war a toll yaakaar naa vingt nawet nga wax mm-hmm. euh, foofu itam am na euh, mbir mu ci xew muy loo xam ne daanaka xaw naa yu sax polémique muy mbirum lettre boobu ñuy wax nga xam ne dañoo xeexee rek gis benn lettre bu génn bu mel ne yow lay ci daal loo xam ne dama ko bindoon ci état ndax balaa ñoo dugg ki jëm polémique boobu xew tey mën nañoo xam loolu naka la daan maanaam naka la demee depuis léegi ba lu war a tey lu euh, soppeeku donc tout d'abord hmm. euh, du question rek ñun ñooy demandé ñun rek la ñuy jox hmm. euh, mbir moom fa mu hmm. bañ commencé di soxla di am fu ñuy dalal gan yi ñu jaar fa pour ñu dajale am na ñoo xam ne sax dina ñëw duñu fanaan xam nga comme Dakar la aéroport bi nekkoon ni soree loolu moo ci indi King Fahd dañ daan def gan gu ñëw dégg nga du ñëwandoo xëy na ci espace deux jours la ñuy ñëw hmm. mat ñu dara leen fa hmm. pour boole leen hmm. dugal leen ci bus ak oto yu ndaw am escorte mu ñëw dégg nga indi leen ba Touba bu ñuy wàññi ko itam duñ demandoo kii wol bii kee wol bee dañ leen di jël yóbbu leen fa ñu toog loolu képp la maanaam lañ fay nekk lépp maanaam ay ñetti fan ñeent gën ga te maanaam. duñ ko fekkante te ñëpp maanaam ñi may ñëpp sax dégg nga mën nañu ñaari fan lay doon leneen la ci des kii dina dem kii kii <laughs> mën naa am ko fa des nag. Hmm. ñetti fan ñeent parce que wolam. Ah, wala xëy na mu amoon lu fi doon dox wala hmm. wala nangam mais mais mais li wëtul te itam li ñuy wax lépp. Hmm. am na ñoo xamante bi di di wax xoola amul benn yoon boo xamante bi li ñu jox ci chambre dégg nga te ci compte état moo ko moom mat na sax dix Ah, soo ko doon seet xëy na facture hôtel bi la ñuy fay ak lekk yëpp maanaam bu ci mat dix millions sax dé dégg nga. dëpp boobu ak léegi. waaw maanaam chaque année. chaque année maanaam xam nga dafa xam ne dañoo defee ne. dégg naa ñu ay ay millions loolu. ba tey loolu dañ ko war a leeral. Ah, ñaareel ba mooy nekkul loo xam ne daal lu diis la kenn rek daanaka war a xool. ñaareel ba euh, euh, ci àddina bi. Hmm. bu ñu amee seen congrès international. dañ leen koy jox. dañ leen di jox oto. comme mhm. oto lañ laaj. Mhm. dañ leen di jox dal. Mhm. même li nga xam ne mooy mooy association bu avocat bu ñu def congrès international. bu ñëwee dañ leen ko jox du question loolu te ñun ñun sax ne loolu mën naa nekk. bi fi Thierno nekkee. lañ euh, wax ne ma di ma may sant euh, Cheikh Abdou bu sëñ Modou Mokhtar. ak soxna Bali. bu soxna moom moom miinante na ak mais man minante wu ma moom booba sax donte xamante nañ. Hmm. dégg nga ci moom lañ jaar waa Thierno Lo mu accordé ko fi saase. Hmm. ñaari at yoo xamante bi mooy ministre du tourisme mu accordé ñu ko. Hmm. moom wax na ko ci benn vidéo. maanaam ngir seere. Ah. Euh, ba mu fa jógee Youssou Ndour ñëw dégg nga lañ Thierno Lo daan daan defal après maanaam mu du ko defee noonu. Youssou Ndour. dégg nga te man euh, mosuma ko sax maanaam euh, euh, gis dajeeg moom ngir wax ko loolu déedéet mm-hmm. bañ ko xamalee rek ak ñi muy liggéeyal mm-hmm. dégg nga dégg nga nekk ministre du tourisme ñoo xam ne ko lii lañ daan def mm-hmm. léegi mu accordé ko fi saasi ba mu fa jógee am na soxna su fa nekkoon ministre ñu ko du may mën a xuma nan mu dikk daal di ko rejeté waaw ku ku ku tudd may mun a ma nan. Hmm. nekk ministre de tourisme waaw. Hmm. de tourisme ay xaw ma lan transport aérien. Hmm. bañ defee loola Mouhamed Abdallah Boun Dionne yàlla na ko yàlla yërëm bañ ko ko yëgalee. te lépp nag maanaam ànd ko ak nag donc donc kilifa yi. yi ñu ko seqal. mooy ci biir comité bi. waaaaw ñu wax ko. mooy benn la benn Abdoulaye Dione da nga maanaam maanaam ci intervention sëñ Bassirou bi nga xamante bi mooy suñ kilifa. monsieur mu ko mu jiite président bi waaw président moo wax ak ki nga hmm. xamante bi mooy premier ministre à l'époque yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan dégg nga hmm. ne ñun lii lañ daan def te nangam waaye nag ren nii moom benn bu lay joon moo ko prendre en charge dem ci primature ne nag ñu nag bu déwénee loolu moo ci indi secrétaire euh, euh, général ñu nag bu déwénee hmm. loolu secrétaire euh, général léegi ngeen di bind la ñuy yóbbu mbir yi après dinañ wax ak ñoom pour ñu defal ñu ko ni ñu koy defalee ñeneen très important. leeral yi am na solo Thierno loolu sax nee na ma ba mu koy def nee na am na yeneen famille religieuse yu mu koy defal am na ñu tudd. ne hmm. ñooñu ni ma ko defalee murid yi. noonu la noonu laa leen ko defal maa yëmut ci murid yi donc. déedéet déedéet. tey nag li wax am na solo mooy somme bi li ñuy njort ne dafa nekk xaalis bu dul gën jaa bari mu tudd 10 millions. très important ay chambre yoo xamante bi ñun fukki chambre ak juróom. Hmm. lañ laa laaj ci lettre bi. Hmm. lettre boobu ñu bëgg a xam bi ma bind man. fukki chambre ak juróom laa ci laaj ak juróomi suite yoo xamante ne bii maanaam chambre yi bu dee euh, prix forfaitaire. Hmm. ay quatre-vingt quelques mille francs la matut waaw. Hmm, suur hmm, nga matut dégg sax loolu. bu dee suur bi xëy na mën ma deux cent mille francs. de dégg nga maanaam par suur donc donc prix donc loolu bi ñu defee loolu lañ continuer di ko def ni ko daan defee ak dafa am beneen lettre boo xamante ne xëy na benn bi lañ gis. Ah, mais man ñaari lettre lay bind. Hmm. beneen lettre bi pour parc automobile boo xamante bi itam nañ koy defalee bu avocat yi dee am seen congrès magistrat yi am seen congrès nañu ko defee ñun donc noonu lañ ko daan defalee di ko defal nag yenn famille religieuse yi lé mais après ñu jox ñu chaque année nañ jox lu mat juróom benn voiture yu ndaw hmm. nañ jox encore maanaam ñaari bus wala benn bis hmm. ndax change ça dépend ci nu délégation yi tool ak nu ñu ko soxlaa yegg nañ ci sax ba léeg-léeg seen oto du nekk ci condition dégg nga ñu luyee ñu oto waaw def léegi Sénégal Tour hmm. dégg naa kuy wax euh, di wax naan daaw joxuñ leen ko loolu amul hmm. daaw jotuñ ci hôtel bi parce que ci délai yi ak heure bi accord bi génn hmm. man maa jël décision ne comme am nañu commencé ñëw te hôtel yi jotaguñ ci nañ changé programme bi ku wàcc dégg nga ñu am fu leen dajale dégg mu metti woon lool ndax booba salon VIP bi lañ nekk ba ñëpp daje ñu indi leen Touba bi ñu mm. ñibbi itam ñu garder leen fii. Mm. léegi ba dem jot. ba dem jot jotuñu hôtel mais du question dañ ko rejeté. Ah, maanaam seen programme. avant procédure bi pare moo laajutun xaar. waaw mm-hmm. waaw loolu ñun dégg nga moo laajutun xaar mais oto jox nañ ko dégg naa ko ne nag joxuñu oto. kooku mm-hmm. kooku moom yaakaar naa ka ko information juum na. Ah. jox nañu seen oto chinois yi daaw. Mm. dégg nga maam lañ laajoon ci oto. lañ ñu juróom-benn la ñuy laaj. Hmm. dégg nga ak bus parce que comme loolu tam même li dal oto yi. Hmm. maanaam moo dal oto bi na ndax oto yi bi ñu koy jot fekk na ñun sax ñu luyee oto. Ah. ndax booba bi ñu koy jot fekk na gan yi commencé ñëw. te comme procédure boo xam ne ñun mënuñu leen a soññ loolu moo tax ñu far bàyyi hôtel bi dégg nga ñu annulé ko mais kenn racheté wu ko. Ah, très important waaw oto yi itam kenn racheté wu ko. Hmm. luyee nañ daaw. parce que bi ñu luyee bi ñu jot oto yi fekk na gan ñu commencé ñëw te ñun ñun mënutuñoo xaar. Hmm. mais jox nañu ay oto daaw kon ki wax loolu na vérifier at information bi. macha allah Mbacke euh, fi ma bëgg a ñëwaat ñu taxawaat foofu ba tey mooy dañoo gis ni nga waxee daa mel ne yow secrétaire yaa nga wax mu nga bind présidence. Hmm. man gis naa li nga xam ne moo di bi euh, pour leeral ñi siiwur ne lettre bi man teg naa ci bët def koo bind. partage wu ma ko mais ah waaw ante non waaw ah, ah, parce que euh, am na raison yoo xam ne partage woo ko mais pour pour wax leen man teg naa gët ci lettre bi. te daf koo def en bi ci kaw bu mbindee comité d'organisation Grand Magal Touba dafa bind ci commission relation extérieure ki suuf mu adressé ko secrétariat euh, président de la république yaakaar na Omar Samba Ba. ma li ma gis ñu bind ko signé ko nag moom ah, signé ko bind ci Cheikhouna Mbacké kon pour ñuy wax ñu war a jàpp leneen ci lettre bi ñu xam ne lettre bi ma gis man te ñaari leetar la bu ci nekk daf koo bind ci sous commission relation extérieure moo nekk ci lettre bi contenu lettre bi nag. Euh, dafa am loo xam ne xam ne mbirum det état la xëy dafa am ñoo xam ne ñoo génn lettre waaye daa am loo xam ne mbirum état la moo tax génnu ko mais daal li am solo mooy yéen ñi njort la neen ci lettre bi xam ne lettre bi daf ko bind en tête bi relation commission relation extérieure bu comité d'organisation Grand Magal Touba moom la ko bindee moo nekk ko daan bindee chaque année loolu moo ki nekk pour yéen ngeen xam rek ngeen mën a xam ne bu fekkee am na ñeneen ñu njort ñu xam ne lii moo xam man mi wax ak yéen wan na ma lettre bi gis naa ko yaakaar naa loolu dana doy te teg naa ci gët euh, Mbàkke fi ma bëgg a tax kon mooy lu ko dugal turu Cheikh Omar Diagne nga bind li ma gis ci mooy da nga cey def euh, Omar Samba Ba moom moo ko adressé Cheikh Omar Diagne tontu xam nga administration dafa am na muy doxee hmm. euh, tey bu amee lu ñëw hmm. ci benn direction hmm. boo xamante bi moo ko waa fi ñëpp général moom Euh, li nga xam ne mooy administration bi nekk bi nekk présidence moom moo ko jëlee noonu la amee nag ay direction ci biir. Hmm. dossier bu ñëw dañ koy jël dégg nga ñu amputé ko ki nga xamante ne bii moo yor loola. Hmm. nañuy doxalee nag ñoom est-ce que dafa war a xool delloo ko ki ki ki ko bind kooku tontu wala mu bañ tontu. Hmm. wala moom mën naa sañ-sañ tontu man dugguma ci ndax seen organisme ay. interne ma xawma ko. waaw mais man. da nekk naa ci administration donc jiite une poste diplomatique boo xamante ne bii maanaam xam naa ni ni ay dossiers di demee ni ko koy lee waaw lu tax mu tontu. ndax yoon la wala du yoon xëy na ñoom xam nañ ko mais man loolu loolu mënu ma cee tontu. en tout cas daal li leen daal yow adressé woo ko lettre moom. yow secrétaire présidence nga adressé. moom nga bind. waaw kee la te itam li ci am solo mooy li ñeen ñi njort mooy. Euh, wàllum usurpation de fonction mel ne da nga ko bind ci turu président comité bi ndax lettre bi tam li tax mu ñu bare am ci njaaxle mooy dañoo gis moom bi mu lay tontu daa bind président comité d' organisation grand magal de Touba foofu itam yaakaar na mat naa leer. Euh, fa mu def a am na fu fu ñu defee même faute d' orthographe. Ah. donc ci biir lettre bi xëy na yàkkamti xëy na nit ku yàkkamti bëgg a hmm. génne li nga li nga wax defe noonu précipitation ah, xëy na donc moo indi loolu hmm. wala mën naa doon nag c' est bien intentionné man na am mm. parce que la tax nit ñi di xalaat naa damaa def man def usurpation de de de non mm. maanaam wala mu noonu xëy na man naa mu jublu ko ci man donc xaw ma en tout cas man li ma def laa xam mm. ak donc li ma concerné loolu moom lu mu ci jublu dafa juum wala moo ko tey man xaw ma ko moo war a tontu wala war a tontu kooku ñoom lañ koy laaj mel na ne itam yow lettre bi da ngaa xëy rek gis ko mu génn ci réseaux sociaux yi mel na daal ak génnam moom yow ni nga waxee sax boo sañoon du am ndax da jàpp ne mbir mi solo sa àggul foofu ndax la ngeen bëggoon ginnaaw bi ko ñuy gàntalee ay tarib rek nañ ko waaw kon lu war a génne lettre bi man man waxuma ji ma ci njëkk a laaj ba ma hmm. waxee dama ko ne no hmm. ko man du ci wax hmm. ndax ñun ñoo ëpp loolu ne ko mais maa ngi déploré maanaam lettre bi biñ fuité fi mu jaar bañ génne ko man euh, neexuma te d'accord ma ci ne ko nag mu ne ma nag Euh, xam nga journaliste yi ñoom dañoo xereñ ah xam nga am na foo xam ne bu ñu la fa jaaree rek <laughs> dégg nga faa ñu gis la mu ne ma nag kon lii daal dina indi rëq-rëq ma ne ko ban nii laa ko ne dama rëq-rëq ah. ma ne ko par contre hmm. liñ soxla woon taalibe Sëriñ Tuubaa yi jox nañu lu ko defal nañu ko macha allah euh, euh, macha allah Mbacke ba tey leer na kon yaakaar naa mbokk yi ba tey yéen ngi si pour yaakaar te a soxlawaat parce que ah waaw waaw parce que ah, lii bañ paree bañ hmm. paree dégg ab taalibe Sëriñ Tuubaa moo joxe joxe otolam Palme Beach. Hmm. vingt chambres. Ah. fa lañ jaar ba ñëw Touba bi ñuy delluwaat dégg nga beneen taalibe Sëriñ Touba moo fay hôtel yi donc muy Mbàkke yu fay. macha fi ñu toll bi ñuy delluwaat. Ah. moo fay hôtel yi. très waaw li ñu leeral ko. waaw man daal donc euh, et puis sëñ buub. moo hmm. joxe bisu cinq place ba noppi ne ne même hôtel bi sax bu ñu ko fayutoon dinaa ko fay te déwén maa koy fay. kon mel na daal mbir mi waaw daa niroon li ñu indi gaa waaye daa ubbi buntu waxtaan naa encore ci ci message de soutien yi may jot hmm. ñiy wax ak man samay nis may am di jàmm dégg nga Mahmoudan Fall hmm. dégg nga bu Alaaji Ndaama Fall hmm. tam ñoom moom euh, résidence Mamoun wax naa ak man ñu wax ma leeral ko li ñeneen ñi def ne ko nag yéen ñu ngi séentu donc seen seen contribution ci wàllu ngeen ma ne mu ne ma résidence Mamoun est à votre service